yëkkati naa ku weet day desa yàlla lanket ko di ñee xamal ma ne Mali day weet na ak suuf la soo xam ne ñépp ko bee di daal di koy bàyyi CEDEAO ak Union africaine jëli daan teg ci ndoddug réewu Mali moomee gouvernement de transition bu Mali bi daan yi nga xam ne CEDEAO teg na ko moom it mu tegaat ko état CEDEAO yi daal dina ràpp ay frontière am tëj kay fu lay jaay ko may ma mañam jeexal ko turbine yéen a kaay daal di may xamal ne ay daan la yu diis yoo xam ni CEDEAO day daal dina koy teg ci ndoddug Mali waaye président Macky Sall bu doon ay xeer la nice waaye gars yi bokk CEDEAO it ña ngi leen di yekk keteme ci coowal Mali bi Babacar Justin Ndiaye ci yéenekaay bi ne ñii daal ay xar la yoo xam ne dañ leen di wommat te kat kayoor bumba boo ko seetee ba seet soriwul Paris Mamadou Lamine Diallo ne CEDEAO la mu xamul mooy gars yi ñoo ko joxatul gëdd ak fulla gu war tax mu jël calendrier am di ko imposer waa Mali wala beneen dëkk bu bootu ci moom Boubacar Seye Horizon Sans Frontières ci yéenekaay bi des médias bi ne daan nga xam ne teg nañ ko Mali dina andi gàllankoor ci dem ak dikk gi andi gàllankoor léegi Thierno Bocoum ci yéen kaay des médias bi ba tey ne jàppale askanu Mali moo ñu war Déthié Fall PRP ne dirigeant CEDEAO gii nañu doxal humanisme doxalee yërmande ak xel ndax nag Déthié Fall ne dogal bii ñu jël dara taxu koo jóg lu dul nag xoj Mali ba mu faatu fa yàllaahu l'évidence yéen kaay ne ma coow la coow la laaj wa ñu war a samp moo di ndax CEDEAO ña nekk bitim réew di nasaraan sa ñoo yor buum takk ci baatam di watat fu leen neex jëmee Dakar Times ne loo ci mënti déggit Sénégal mooy gën a ñàkk nag ci tëjug Mali Sénégal dina ci ñàkk ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti milliards at wu yàlla sàkk bu nu wéyee tëj frontières yi ñeenti million tonnes ci marchandise yoo xam ne Mali la jëm ñi ngi jaaree ci port autonome bu Ndakaaru bi kan moo ciy gën a lorule Vox Populi ne xanaa senegal source a daal di may xamal ne campagne électorale ba day ñongo ca dëgg-dëgg gaa yaa ngay dige rek waaye ñenn ñaa ngay tuumaal ñi ca des yéene kaay bi daal di dama Abdoulaye Diouf Sarr moom def na boppam maire bu Ndakaaru ba noppi tës Barthélemy Dias ma ngay dig juróomi milliards at wu yàlla sàkk ma jóob jóob Sonko waa yeewi askan wa nekk ca Casamance maître Ousmane Seye dikkaat ci coow la nga xam ni moom moo am ca Parcelles Assainies 24 heures yéene kaay ne mbaadu Bougane Gueye day bëgg këppatal Barthélémy Diaz l'exclusive ne ma en tout cas moom Bougane Gueye daaneel ko ci mairie boobee la jublu moom jiital gëm sa bopp l'exclusive ne ma ma ngay ami poñ de gannaaw ba nga xam ni Barthélémy Diaz ñenn ci askanam daal dinañ koy goxki 24 heures xamal ma ne lu ci mënti am bugaan ma ngay waat ne dana soppi commune bu moo Sacré-Cœur te xam na ne it Barthélémy Diaz du ko neex a song waaye daan ko mooy mbébét 24 heures yéen kaay ne ma moo taxit dana dugal loxoom ci njàng meeg njàngale mi soppi xar kanamu tàggat yaram gi soppi xar kanamu environnement ca Mermoz Sacré-Cœur xëyum ndaw ñi mu dugal ci loxoom moom Bougane Gueye Dany dugal loxoom ci koomu Mermoz Sacré-Cœur ba gaay yi mën caa gi soppeeku daar daar direct news daal di may xamal ne daar daar laa lay xamal na meeting ba ca Parcelles Assainies ni it Moussa si ñu ne fiasco la fa def am nag sabotage ku ca am ndax nag ca tàmbali ga takkusaan ga mobilisation gu rëy amoon na ca waaye mujjantal ga ay naa daal di ñëw jaxase carte ga Amadou Ba mi nga xam ni responsable APR la ca Parcelles Assainies vingt heures la fa ñëw gaay a xaar ba xaddi Abdoulaye Diouf Sarr Mbaye Ndiaye kenn tegu ko gët direct news na ma Benno Bokk Yaakaar nag tàmbalee wane ak xaajaloom ci élection locale yi te président Macky Sall war a xam leen yéeni kaay bi ne ma bu APR ñàkkee ci élection yi APR a ko ko xañ l'exclusive yéeni kaay ne ma APR ña ngay xëccoo fu ne ci réew mi demal ma ba diiwaanu Louga diggante Moustapha Diop ak Mamour Diallo la Mamour Diallo andi Aminata Mbengue Ndiaye teg ci wetam Moustapha Diop di ko yekk xamal ko ni am nga juróom fukki at juróom ñaar benn saakuk suukar mosoo ko ànd ci gox gi rëppatal sunu milliard bëgg jël sunu maire du fi amee 24 heures yéen a kaay ne ma ca jaawoo ngay dal ca kaw ñoom Bibi Baldé consort yéen a kaay bi ba tey ne ma Sitor Ndour ma ngay yàq kettemee Matar Ba ca Fatick réew mi quotidien ne ma loo ci mënti déggit ñoom waa benn ak seeni liste parallèle ak seeni ñooñ ñoom ñooy xeexoo ci seenu biir critique yéen a kaay ma xaajaloo gi am biir bennoo bokk yaakaar mar day taali moo leen nar sànq Adama Faye moom ma ngi leen di yekk musiba xamal askan bi dootuñu da ngeen leen di jagat-jagatee roñ roñi dem roñ roñi ñëw duudu wat gaa yaa ngi koy yëg si baaxum di woote soppite Grand Yoff maître Aba Talib Gueye fay dëkkut sax turbine ma en tout cas ca ndar day Mansour Faye Mayoro Faye ak Mary Teuw Niane ku ne ngay dal sa kaw morom di yekkante musiba booba l'enquête quotidien ma ngi may xamal ne oustaz Aliou Sall day ma ngay naqarlu loi bi nga xam ne tàbbil nañ ko géej te mu doon criminaliser ngóor jigéen libération yéeni kaay xamal mi di fi ami Sénégal te bëgguñu réew mi lekk ci dara xoolal ma rek société bii di Seka ak Sonatel ay milliards la ñu am ci ndoddug sénégalais yi daan yin teg ci kaw Adama fay le Témoin yéen kaay ma tàbbi na géej mujjul fenn terrain jàmbur la jël occupé ko boobaak léegi tribunal te koy daan moom Adama puusul paasul le quotidien le quotidien ne moo ne day directeur général bu Descos mi ngi xam le ni yéex gi am ci gile dossier aajoowul fenn fu Adama fay bokk dafa fekk na liggéey baa jeexul rek le quotidien le quotidien ne ma 2018 ak tey le juge ba xamle woon ne na Adama Faye able jàppale Sénégal nee na Zimbabwe nañu abal Sud Quotidien xamal ma ne ndam la day noo ko mënti tuddee ndam la waaye laataa ñu ko am dañ nañ jaxaan na ma Le Soleil yéene kaay ne ma ndam li kay dañ koo forcé jëli ko wuti ko am ko Direct News ne bu ñuy rafetlu sunu ndam waxtu woowu journaliste tàggat yaram yi amee xar Omar Jara dem na moom mi Serigne Touba ak tàggat yaram kese ñoroon nit ku baax bëggoon ay ñoñam dem na L'Observateur ne ñu ànd dem daaneel ci l'enquête bi nga xam ne def nañ ko ci biir jumaa yi waaye xam yooyee détournement ma ngi am escroquerie ma ngi am am na ñoo xam ne ca lañ jaaree tekki ba faw l'observateur ne tey laa lay xamal dëgg dëgg ci ñi nga xam ne bu ñu liggéeyee ba retraité la ñuy daw wutali jumaa ya bu ñu yeggee nag di xëccoo comité de gestion ya yendu leen ak jàmm te bu leen fàttali coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat. ak ñi naan pepe kaleer